maa ngi leen di fay Amina ak Rama waa Bour Gueweul TV ak waa 313 digital ak jàmm ji info maa ngi leen di fay di leen déwénatil Fatou borom borom borom nu mu koy waxee sax nee moom dans la toile loolu kay sëñ Touba dogal na ko moom. bariwu ma waaye añu rek. ndeysaan 12 kilos. boo amee gan gu baax sax. jigo año nga koy defaral jigo año bu baax ngay wut piqué ko mariné ko oh koor gi xoolal ni ñu def año yi jël año yi rek ba ko ca barbecue ba mu doore <laughs> gis euh, kii xawle Adji Mass nga ñëw wisi ko sa diggante ak Adji waa kooku nag day kenn ci man dañoo bokk lu raw ndey ak baay muy bokk wasila buy sargal sëñ Fallou te gis nga ni ma def ci sëñ Fallou xaaral ma jóg. daan na Fallou génn loolu nga wax. bu wootee ci sëñ Fallu. te ñu ne Fallu ni faatu. faaw faatu ñëw. waaw bu sa jax réew ba càmmiñal maree ma kunta yaayu mbenn sëñ Abdou Karim mi mu bàkk rekk nu ñor ma teewal fi sama bunt ci kër sëñ Fallu muy soxna May Laxaat u sëñ Galas. ma teewal ko fi ndax koor gi moom xam nga way juram wu góor da koy tënk muy Cheikh Abdoul Karim mm-hmm. di yaakaaru Adji Mass bu ko defee ñun waa këram yi ñun fondation bëgg soxna may laxaat ñu daal di ko fi teewal moo waral suñu teewaay ci biju Adji Mass ba pare Adji Mass di xaritu senegal nag waa moom xaritu ñëpp la rama moom dafa baax tey mu ne woo dafa woote sant ak berne Mouhamed ñaa frère di ko way man xam nga ku amul lu la neex doo sant te yàlla moo ne sant leen ma ma dolli leen boo santee rek suñu borom da lay daal di dolli dafa toog ba sëñ fàllu am lu mu ko wan mu am lu mu yëg ci biir xolam di sant sëñ fàllu kon rafet na ñun fàllu fàllu yi man ma teewal fi kullu fàllu fàllu ndax am nañ group bu fàllu fàllu dirigé par Jatu ñoom yaa mayka ñoom maam xujja cuun bu ma limee rek dinaa juum ñoom ndaak borom argentin fàllu fàllu yi ñoom ñëpp xam naa ca kanam bu nu ñëwul it maa leen fi teewal ndax weeru koor gi ak bernde yeeg yooyu mais aji tey dafa def li mu war a def muy sant sëñ fàllu sant leen ma ma dolli leen waaw bëggoon ñu waxtaan si tuuti mooy ki nga xamante ne rek mooy suñu sëriñ bi ñun ñëpp ko lool muy sëriñu jeunesse bi mm-hmm. te ki nga xamante ne rek ne ku ko bëgg da ko Cerno Ibra Faati mu si pencum boppam baabul laay baabul kenn du moom faatu foofu dama fay taxaw moo fekk dara nekkul mu def dara kooku nu mu mel ñun la kenn du Cerno Ibra Faati xanaa déggoo leen li ko Murtala Mbay wayal doo fekke fu nuy néewale lu nu xewle yaa ci jiitu waaw maam Thierno borom daaru baabulaahi baabul janna borom cinkóori inda diyoori ndaama Ibra Faati ma ca pencum boppam soxna Isa Jéey la ñuy woowee waajuram maam Thierno min ko duppe mooy maamam Cheikh Ousmane ay baayam gaynde day ne ci àll ma nga ca àll ba toog di liggéeyal maamam borom daaru xam nga médecin sax bu xamul sa jàngoro du ko mën a faj day nit bu simple dafa simple mën a déglu ay taalibeem xàmmee ñëpp nag ëttub Cerno Ibra Faati boobu ku fa teg sa tànk ci sa tur lay jaar yëgul ne sa tub sëñ Ousmane ba doomi sëñ Ousmane la yëgul ne sa tub Cerno Birahim la te sëñ maam Cerno jàngal sëñ Fàllu moom suñu link dafa soree man ak moom ma koy ñaanal yàgg yokk wér di ko ñaanal bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool yàlla bu mu jënd ordonnance ci li mu yor ndax maam Thierno bu du woon moom du baax xam nga ay jeunes topp la ba pare nga di leen wax dëgg mm-hmm. li nga xamante ne mooy liy dëgg naasiril xaq bil xaq déggoo ñu naan dëgg rek ay dëgg bàmba rek kay dëgg moo tax mu daa signé wasalaamun alamani tabaaxal xuddaa la paix est avec celui qui suit le droit chemin. Mm-hmm. yal na nu sëñ Tuubaa defal tawféexi sëriñ bi maa ngi leen di jaajëfal nag. mun naa ne tey moo gën a oyof ci sëriñ si ndax doon na sëriñ boo xamante ne amul protocole. marabu sans protocole protocole boo ñëwee ci ëtt ba nga koy fekk boo xefee yéenay lekkandoo bu dee maçon yi mi ngi ci seen biir bu dee góor yàlla yi mi ngi ci seen biir noppaliwul artandikowul. maa ngi lay maa ngi lay fay chéri nga def bu baax dama bëgg yéen sama caméraman yi ngeen zoomal ma bulam. <laughs> Ah, def ah. garaam bu watatu rek moom. def bale bi def bale bi gunge faatu ware sama doom day bëgg fàllu mhm. ñëw ci bis bu màgg. tubaarkàlla aji maas ma ak moom Mbàkke la ba Dakar te dara ñaawul cencut maa it cambriolé wut kon bu xewlee daa war a mel ni bëtóor gee ma tamoon dameel moo tax ma sànneeku rek màtt sama tuñum kaw xuli samay bët dikk ci bis bi def ko faari xar yi ñu coppati rek nii da laa def chéri woote bésu sant daal di woote ay traiteur am ne berne sant Mouhamed Niang frère am di ko waay dëgg la Mouhamed Niang kooku xar benn melo la dafa baax lum laalut baaxut lum laala gën lum laalut élément Serigne Saliou bi sama Youssou sama Youssou Ndour waroon ngeen ma laaj nag suñu Youssou Ndour kon. yow yaa ñu a feree na Fatou dana ko sonn. kon suñu Youssou Ndour kon bu ñëwee ci bisu aji maas loolu war la ndax sotti ceeg def ci la te aji maas dafa baax. bëgg sëriñ Abdou Karim borom màkkaali man axlaa kooku sëñ Fallooy baayam Falloo bu so baali jax ree ba càmm ñel ma ree ma kunta ku jaaxle Fallu ngay woo kon bis bi daa war a alaa daw mi ndax kiñ ko tudde la daraam ndawut du tuutal daraam. fii daal tey dara tey fii dina mel ni lëmbalu vampire. waaw si nekk di. koor lañ ne waaye ndogu nañ dañuy jëm baajoo. yàlla yeewul yàlla yeewu na xool nañu nee na def leen leen saf. kon ñu ñëwaat si kanam. waa kaa bi noonu la tëddee chéri. kaa bi ni la demee dee la <laughs> merci ma ngi leen fay bu baax a baax. ñi nga def sañ def sa verre bu baax. waaye gis nga jàppale sama mag rek aji maas neexul. waaye ci weeru koor lañ nekk weeru ñu war rek ñu def nii rek dafa wadd rek ci armoire bi ma sol. man daal man damaa bëgg ñii daal man kee day sañse du ko yëg kii daal day ubbi rek mu wadd mu daal di glissé daal di jël sol. non dafa wadd rek ma ne ko yaay dem. waa <laughs> moo bëgg a ñëw moo tax ñëw na ba mu neex. maa gis nga macha allah. ay <laughs> tey nga daal di ñëw ci bésu Adji Mass tey bëggoon nañu xam Adji Mass lan nga ci moom. waa Adji Mass day sama mag di sama xarit ah, nekk nit ku baax nit ku ah, nit ku yëkk nitam waaw vraiment kon kooku xam naa ne xew xewlee dañuy jàpp lépp rek ñëw wuy si ko. ko gisee daal neex na ma man. neexul moom dañu ko jaral ndax koo xamante ni boo ko gisee ay bëñam ngay njëkk a gis mu nekk nit ku baax te lu lu raar mooy que ki nga xam xamante man dama naan ko moom nitu àjjana la parce que day bëggal nit ki Adji Mass fu mu nekk doo mer da ngay reetaan day dindi stress mooy loolu kon xam kooku bisam nii rek la mën a mel. <laughs> mu xewle ay xaritam wuy si ko mu daal di defar ba mu baax traiteur yi ñëw affaire yi lépp lépp di jaabaa jolle daal dëgg neexu sànq ba mu yegsee tombé ñu nekk ci biir ne ah sama gars yi damay bañ ngeen jël premier coup su ko defee boo leen demee ca bâche ya doo leen mën a euh, mottale li ci def macha allah kon nga xam ne comme moom bésam bi rek daf ba suur naan bu mandi bégee Mohamed ñaaw ñëw bégal ñu yàlla a neexul dara du fi yomb ba ci kanam